wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaan wa tamkin bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki taalibe bokki jullit yi bu ñu sante suñu subhaanahu wa taala julli ci bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama delu sante sayyidina al-Xadim alayhi akbaru ridwanullahi baaxil xadim di ñaan suñu subhaanahu wa taala fayal nu ko noo ñaan Cheikh Muhammadul Muntaqa suñ borom yàggal ko fi lool te mu wér ba li mu yéene liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal njabootug lislaam mu àggale ko fa kawe njortam ànd kook ñun dong yëpp ci barkeb alquranul karim kon bokki M-Media Group Nourou Darayni noo ngi fas yéene dikkaat ak yéen ci sunu émission jataayu jigéen ñi zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataayu fàttalente la waaye jataayu laayinti biir la ngir li alquranul karim wax ak li xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wax doon jataay boo xam ne noo ngi ciy wax ak sunu bokki soxna yi waaye di ci wax ak mboolem jullit ñëpp rek ndax tomb yin fi faral di waxtaane jigéen mën na cee jariñu góor mën na cee jariñu ak donte mi ngi gën a màcc jëm ci jigéen ñi waaye ñëpp rek mën nañ cee jariñu incha allahu taala mu mel ni jataay bi nga xam ne moo paase noo ngi noo ngi woon ak yéen ci fi Sëriñ Tuuba ridwanullahi alayhi di dénk soxna Penda Diop wajitani bil ghibata wa takabbura wa asbiti sukuta wa tasabbura dénk soxna bint soxna Penda Diop ne ko maa ngi lay dénk nga moytandiku jëw waaye mooy te ndiku rëy rëylu waaye mooy waaye itam tanga sax ci di noppi ak di muñ mel ni baatub jëw boobu ci lan taxawoon eh, di ci jéema indi ak leeral ana lan mooy jëw ana bàkkaar yi nekk ci jëw ana aji jëw ji naka lay taxawee diggante ak boroomam subhanahu wa ñëw nañ ci jëw ni nga xamee ne noonu la ko alquran karim nuróole ak lekk méddum méddum euh, ak ak lekk lekk sa moroomu doomu aadama ñëw na tam ci ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama euh, nuróole euh, ak lekk méddum mbaam te lekk méddum mbaam sax gën koo oyof jëw axibatul muslim fi xawlil xabiir aqbahu min aklika jifatal xamir ñëw nañ ci jëw ni nga xamee ne noonu la gën a noonu la bàkkaar bi rëy ba gën a rëy bàkkaarub njaaloo nit ki njaaloo fanweeri yoon ci lislaam nit ki jëw benn jëw ëpple njaaloo fanweeri yoon ci lislaam loolu doya doy waar la ak jëw ni mu yombe ak ni mu bare ak nit ci nit ñi di xëyee ak di ci gontu ak di ci yendu ak di ci fanaan te sax duñ ko bàyyi xel te mu nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu doy doy waar la nga xam ne nit ki bu nga xaman ne nit ki dafa njaaloo rek ni ko nit ñi di tege ak nan koy xoole ak euh, nit ki bu jëwee daanaka kenn du ko bàyyi xel ndax bàkkaar bu jëw tasaaroo ta fekk na kee njaaloo kii jëw moo ko gën a rëy bàkkaar fu waaye nag ni Sëriñ Tuubaa waxa ne musiba su baree rek day mel ne lu doy di bari gu mu bari siiw gu mu siiw moo tax dem ba mel ni jëw dafa xaraamatut wala jëw moom dafa dagantul loolu moo tax waaye nag téewut moom na mu xaraame woon ca jamono yu jëkk ya ba sunu jamono jii nga xam ne ci lan tollu noonu la xaraame ñëw nañ ci xisa boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa nettali nanu ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toogan ci kenn ci ay soxnaam muy sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha am ku leen romb sol lu gudd lool mu ne kii ak a guddi yére yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko woccul mu luuju wàccu lumbu deret génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam giñ ne ko maa ngi lay giñal ci sunu borom mi nga xam ne moo yor sama bakkan lii bu reesan ci sa biir bi booy dee di tàbbi sawara askane gin lay askanel ci man du ci man dara kon loolu day tekki ne jëw moom du caagin jëmmi nit ki rek ngay jëw daal di mucc waaye boo waxee ci ay yéreem walla nga wax ci aw fasam wala ci otoom wala ci këram walla lenn lu tax ci moom rek loola jëw la te soo bakkaar benn la ñëwoon na tam ci ni nga xamee ne aji toog ji di jëw moom du caagin moom rekk mooy moom bakkaar waaye ki mu toogal di jëw ki koy déglu ak donte waxul sax waaye ma ngi koy déglu di am itte ca la muy wax ñoom ñaar ñëpp ñooy bokk bàkkaar ba wala tasunu ana zanbal xiiba yaxtasul xaayili fi lmusiba wa fi lxadisi sallallahu alayhi wa sallam inna allasi qad yastamiu lxiiba mushaariku lxaayil fi ma yasma bu leen jortu mukk ne ki toog di jëw moom rekk moom moo amee bàkkaar bu bi waaye bàkkaar bi li muy rëy rëy ki nga xam ne mi ngi toog di ko déglu di ko tontu wala sax tontu ko waaye mi ngi déglu la muy wax suba ñoom ñaar rek ñoom ñoo yew ci ñoo yem ci bakkaar bi kon mbokk yi loolu leen la ci bàkkaaru jëw moo doon lu doy day nag bari lool yomb lool te nit ñi duñ ci bàyyi xel waaye nag nana xam ne na mu xaraame woon noonu la xaraame ba sunu jon yàlla te ji mu mel ni tom bi nu bëgg a indi tey ji insha allah taala dafa xaw a lëkkaloo ak ak jëw te it bokk na ci ndénkaane yi mooy dafa xaw a ak jëw te mooy an an annamaama te mooy rambaaj annamaamatu buñ ko waxee mooy naqlul kalaam lil xayri ala jihatil ifsaad annamaamatu mooy rambaaj rambaaj mooy lan mooy toxal ay wax jëmale ko ci keneen waaye nag jublu ca yàq jubluwoo ca defar moo ci jubloo defar dara nekku ca aw yu sax waaye nag boo ci jubloo yàq loolu mooy rambaaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ab rambaaj ju dugg aljana lan moo tax dugg aljana bi maana laa yakunu awwalu saabixiin maanaam ci ñey jëkk dugg aljana ca bokk bu dee dugg aljana tam mu jaare sawara ba nu ko mu door dugg aljana kon loolu mooy li tax moom mooy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne ab rambaaj du dugg aljana waroom xam-xam yi wax ne loolu lim ci jublu mooy ñay jëkk dugg àjjana nga xam ne ñoom directement àjjana lay def waaye jaar sawara du jaar safa ku nuru rambaaj bokku ci rambaaj bu dee dem aljana itam fokk mu jaari sawara ba nu dindi bàkkaaru rambaaj bu ko mu seet moo door dugg aljana loolu moo tax mu ne ab rambaaj du dugg aljana annamimatu dafa bokk ci bàkkaar yi nga xam ne mooy bàkkaar yi gën a màgg te doon loo xam ne lu tasaaroo la ci diggante jigéen ñi nag lu bari lool ci jigéen ñi ñeen ko wax rek léegi mooy toxal wax yi nit jëme ko feneen jublu seen ak ak yàq doon loo xam ne lu xaram la bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne mooy bàkkaar yi gën a màgg nga xam ne boo ci sax di ko def ba faatu te tuuboo ko rek sawara ñeel na la loolu an na miimatu daf cee bokk te mooy rambaaj rambaaj nag doon lu xaraam ci loo xam ne alquranul karim wax na ko waaye sunna yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko sunu borom subhanahu wa taala moo wax ca eh, ca alquran hamazin mashaa'in bi namimin loolu mooy lan mooy ñi nga xam ne dañuy jëw ci seeni làmmiñ waaye di jëw ci seeni bët waaye tam di rambaaj nga gis ne kon génn nañ ci jëw léegi waaye jëw yi mu rekk ci wax jëw moom man nga ko def ci aw làmmeñ man nga ko def ci ay bët man ngaa toog ak nit ngeen koy jëw man ngaa toog ak nit ngeen koy jëw te moom di ko xam yaa ngi waxante keneen di ko piis wala ngay waxante keneen di ko ngelaju loolu lépp day dugg ci jëw te loolu alquran tudd na ko rëbb ñi nga xam ñoo koy def loolu moo tax mu wax ne amazin masha in bi na mii miin ñett yooyu yëpp dafa bokk ci gën a xaraam Eh, eh, suñ borom subhanahu wa wax ne ayuhibbu ahadukum an yakula lahma aqihi mayitan lay delluwaat ci lan waxan léegi yonent bi sallallahu alayhi wax ne ne laa yadxulul jannata namaama ab rambaaj du dugg aljana bi maana du bokk ci ña nga xam ne ñooy jëkk dugg aljana déedéet fokk rek la budda mënta ñàkk mu jaari sawara yonent bi sallallahu alayhi wa mas naa romb ñaari bàmmeel ñuy mbugal ña nga xam ne ñoo fa nekk moo wax ne bàmmeel yi de am na ñaar ñun fi mbugal ñu laaj ko ana lan lan def ba nit di mbugal mu ne kenn ki de dafa bokkan dafa daan rambaaj daa bokkan ci ci ñiy rambaaje ci la bokkoon waaye kenn ki nag moom bu tuuraa ba pare daawut ferlu daawut xaar ba noppi day jikki-jikki rek daal di ko dee sobe sa ànd ak moom nee na ñu ñooñu loolu moo tax ñu leen di mbugal loolu tam lu jar di bàyyi xel la rambaaj day tax day waral mbugalum bàmmeel nga tuur ndox ba pare te doo xaar ba noppi loolu tam day waral day waral mbugalum bàmmeel jële nañ ci ku ñuy wax euh, kaabu mu ne na ngeen moytandiku rambaaj ndax ab rambaajkat du nopp lu mukk mukk ci mbugalum bàmmeel di leen moytandiku rambaaj ndax ab rambaaj du noppalu mukk mukk ci mbugalum bàmmeel jële nañ ci Mansuur mu jële ci Mujaahid mu wax ne li alquraanul karim di wax xamaalatul xatab ca suratul masad yi ne na kookee dafa bokkan ci lim laa def dafa daan dox ci ak rambaaj muy jabari abi lahab mooy li alquraan di wax tabbat yada abi lahabin wa tabba agne anhu maaluhu wa ma kazab sayasla naaran zaata lahab wa imraatuhu xammaalatul xatab fii jiitiha xablu min masadin nee na kookee xammaalatul xatab boobee di soxnaas abi lahab daf daan dox ci ak rambaaj kon rambaaj moom lu ñaawa ñaaw la lu matam moytandiku la àgg na sax ba ci boo nekkee koo xam ne sa mbokk la wala sax Euh, sa soppe la wala sa lenn la nga digg ko xam daf koo ŋàññi wax ko loo xam ne bu ko diggoon du ko neex ak donte daf laa naqari wax nga ko ko wax daf laa naqari nga digga def ko nettali euh, loolu jëru ko ndaxte loolu moom li ci ëpp day li muy yàq mooy ëpp li muy defar euh, ndax nit ki boo toogee digg ab jëwam nga wala nga tigg wala nga digg ab rambaajam te it bu ko waxee xañ ne mënu koo saafara mënu mënu sa def leen tam xañ ne day indi ab diggante bu ñagas waaye nag jëru koon jëru nga di ko nettali mu ci am ñëgg-ñëgg xol wala mu ci am ak noonu gu muy jàppal digganteem ak moroomam rawat na bu dee mbokkam wala muy mbokkum jullitam jabari abi lahab jooju ñu doon wax ci alquran sax te alquran bi wax xamalatul atab xamalatul atab am na ci boroom xam-xam yu ñu wax ne euh, alxatab waye annama an annamimatu mooy rambaaj ndax euh, rambaaj day sabab ak noonoo comme ni nga xamee ne euh, matt noonu la noonu lay saba noonu lay sababe takk takkal sawara ni nga xamee ne rambaaj noonu lay sababe ak noonoo nee na moo fuuf ni nga xamee ne matt noonu lay euh, sababe tàkk-tàkkal sawara loolu moo tax ñu koy tuddee xamalatul xatab moom jabari abi lahab ji nga xam ne ñoom la alquran tudd foofu ci di leen euh, ŋàññi ak di leen tëkku kon alxatab foofu ni ko ñenn ñi di firee matt am na ñoom itam ni koy firee mooy rambaaj ndax moom comme dafa daan dox ci ak rambaaj di rambaaj yi nit ñi di leen jaxase di leen jaxase comme ni nga xam ne sawara noonu lay jaxase ay matt taal leen ba ni tàkk nga xam ne euh, kenn ku ci nekk rek jaxase na ak moroomam te fa mu mujj nekkut lu ko neex noonu ni di euh, jaxase ay matt ne noonu la rambaaj di jaxase ay nit moo tax ñu tuddee jabari abi lahab yooyu xamalatul xatab ñenn ñi di ko tudde ñenn di wax ne xatab jooju ñu ngi ci tuddee rambaaj gi nga xam ne moom daan dox di ko rambaaj waaye loo ci mën digg dal xamalatul xatab fii jidha xablum min masadin loolu moom alquran moo leen ko dig yéen suñ boobu musal ci ñoom kon mbokk yi xam naa dañuy taxawlu waat foofu insha allahu taala mel ni leen man a wax ci tom boobu bari na lool waaye ñàkk insha allah xam ne bu ko aajo itam beneen jataay bi bu dikkee ñu continuer ci wala ci beneen tomb waaye daal loo ci di man daal mooy li Sëriñ Tuubaa doon dénk soxna Penda Jóob na nga moytandiku jëw Euh, jëw nag lëkkaloo ak rambaaj ndax rambaaj wax na léegi ne euh, bi alquran tuddee hamazin masha'in bi namimin la ca teg bi mu wax itam xutulin ba'da zalika zanim naka noonu euh, loolu tam dafa bokk ci li nga xam ne alquran mi ngi ko doon ŋàññee lenn ci ñi nga xam ne ñooy noonu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon jëw moom loo xaram la rambaaj itam lu xaraam la waaye nag dafa jege ñu loolu ak jëw mooy toxal aw waxtaan jëmmi ko feneen te jublu ci ak yàq mu mel ni jamono jintool moom bari na lool toxal waxtaanu jàmbur jëmmi ko feneen te jublu ci ak yàq loolu mooy digg digg rambaaj te rambaaj digg na leen ci wax du dugg aljana bi maanaa bu dee dugg aljana itam ci ñuy mujj dugg aljana ci lay doon hmm, fokk rek mu jaari sawara yal na suñu boom subhanahu wa taala musal ci ab rambaaj ci jëfi rambaaj ak nekk ab rambaaj kon dañuy taxal foofu insha allah taala di ñaan suñu boom defal ñu tawfiq zahiran wa batinan defal ñu ak dégg ci bar Seexna Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ففي مساياه لا يرتاب طيار وهو المتم ذوي الإسلام يوم عدا ميم بي كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey